waxtaan ak mbokk yi euh, damay rectifier rek du mën maa jiite payité payité ki ko jiite professeur Samba Sy moo ko jiite te moom mooy ministre chargé du travail dans le gouvernement man je suis membre de la direction chargée des questions économiques et sociales et agricoles kon bokk boobu rectification jar na jërëjëf euh, monsieur Ibrahima Sène mm-hmm. kon ñu def lu dugg ci émission bi comme que temps bi euh, duñu li li wolof di wax rek lii duuf lépp ci nag yu xajul ci cin li mm-hmm. fi ñu tàmbalee suñu question bu njëkk mooy monsieur Ibrahima Sène yaa ngi bokk ci biir coalition benn bokk yaakaar mm-hmm. ñu gis ngeen def meeting d'investiture bu nga xam ne Sénégal yëpp ngi koy soow ana loolu loo ciy wax loolu lépp di Sénégal Sénégal yi soow bu dee lu baax da nga ciy kontaan rek te lii yaakaar naa ne baax na ndax dégguma ci benn kàddu bu ñu ko ña ca bokkoon ñu ko fekkee rafetlu nañ ko ñu ko seetaan rafetlu nañ ko waaye nag opposition kenn tere kenn mënu ko tere mu wax safaan ba mais loolu lépp ci biir politique la mais li ci nekk ba nekk mooy jekk na rafet na kàddu yu fu jub kàddu yu jub la te luy defar la kon bokk loolu vraiment mën mu fexe lu dul kontaan ci Euh, jërëjëf euh, sëñ Ibrahima Sène euh, ñu gis ne que barki démb le président Macky Sall ñëwoon Touba doon inauguré l'autoroute Ila Touba ñu bëri di ci coow en tant qu'économiste ban opportunité la autoroute Ila Touba mën andil Sénégal. waaw gis nga vraiment xam nga dañ ne opposition mënul bañ a wax quoi mënul bañ a ñaxtu mënul bañ a weddi mais képp koo xam ni économiste nga te économie rek tax ngay wax. dana xam ni Ila Touba li muy jural boo mën a Touba rek de li muy jural économie Sénégal lu rëy lay doon ndax dem dikk foo yombale yombale eh, eh, tabax usine tabax école tabax eh, marché tabax daara tabax lu lépp loo xam ni ci koom-koom la jëm da nga koy yombal boo gisee eh, nit ñi di dem di def ay ay villa ay site touristique ca boru géej dafa fekk yoon am fa bu fa deful woon yoon doon fa def Ila Touba lu muy jur mooy surtout programme bi nga xam ni président Macky Sall nee na ci deuxième mandat da ko ci boole mooy fexe ba Touba nekk deuxième centre économique di Sénégal xam nga Dakar mooy premier centre ñu waxoon ni après Dakar Thiès la bi ñuy defar Diop Niadio sax ñu yaakaaroon ni Diop Niadio moo koy nekk mais programme bi li mu ciy jot a génne dugal ko ci budget 2019 bu ko yàlla mayee mu yeggale kook jàmm Touba ma ni non seulement ma ni mu nekkoon nañ ko xamee bon muy centre religieux bu ñëpp ràññee dañu ko ràññee ci plan économique dañ ñu ko ràññee ci plan culturel dañ ko wàññi ràññee eh, ci plan social ba ku ñëwati Touba eh, wax dëgg yàlla coono ak eh, métti yi nga daan am yëpp ci woon wi ak dëkkuwaay yi yooyu yëpp dana wàññeeku te loolu moo tax ma ni koom-koomu réew loolu lay jariñ ñu toppoo bor bi ci nekk. mais ñëpp ñi étudier pro euh, euh, bor bi chinois yi ko joxe dana ko woyofal ndax taux d'intérêt bi mu teg ci bor bi deux pour cent la te ñu ngi koy fay diir lu mat fanweeri at ak juróom te biir diggante biir fanweeri at ak juróom yi fukki at yi njëkk yi daf noo baal dana ko fay loolu moo tax. bi mi ñuy def prix njëgu transport bi ñu ko calculer njëkk yi génn prix bi génn dana mën a fay rapidement avant trente cinq yi dana mën a fay bor bi yoo xam ni budget Sénégal di jóge impôt sénégalais kenn du ko ci kenn ko ci tegaat dégg nga de lii tëli bi di di fayeeku ci ñi koy traversé oto yi loolu rek dana tax ñu mën koo fay. kon bokk loolu yokkute la yokkute la te ñaari yu mel ni la Touba bu amee c'est-à-dire beneen bu jógee kawlax dem ba Kédougou bu mel noonu puisque léegi pont Gambie bi am na ñu ñu def à partir euh, de de Kaolack beneen autoroute bu bu demee noonu ba mu yegg Casamance. ma ne kon Sénégal kenn dootul am looy wax dem dikk fu mu yombe rek fu mu yombe koom-koom réew jóg ñu topp wala dana waroon nit ba def koom-koom koom-koom bi li muy jur ñu jël ci def def def ay sotti def ay tëli ma ne bu loolu bu doon loolu kon Kédougou du am problème ndax Kédougou usine yaa nga fa koom-koom euh, ba mu nga fa euh, or fa lay jógee lu ne mu nga fay jógee mais lu mel ni autoroute amu fa ay yoon yoon ay yoon yu ndaw rek lañ fa def. ñu gis ne président de la République mi ngi au fond di Kayor nekk ci phase d'inauguration kon lan nga ñu mën a wax ci phase d'inauguration boo xam ne moom la président de la République débuté ci biir mois de décembre bi. non inauguration yooyu mooy euh, dafay matérialiser bilan liggéeyam dégg de. li nga xamoon ni da ko nattoon ni da koy def ci ci yi mat na yi mat yëpp lay inauguré nga xam ni bu duggee ci beneen mandat leneen lay doon yéen leneen lay tabax leneen yeneen euh, lay inauguré mais du woon li mu doon li mu jëmbatoon ni loolu lay def ci sept yu njëkk yi kon bokk euh, loolu lépp ci bilan bi xam nga nag bu ñu la joxee eh, eh, nguur nga am engagement yoo jël boo booy bu loolu jeexee bu app bi jotee war nga jóg wane askan bi li nga def lan la loolu la ñi topp day campagne bi deful campagne bi laa def bu ñëwee ëllëg doo xam ne mais soo leen ma falaatee naa def ni naa def nii te bilaam fu mu toll kenn du ko gëm. ko gis bi la ma xamne li manon te japp jàpp ku la dik leneen bu ko digee leneen dañu ko mën a gëm xam boo gisee opposition bi way day def campagne parce que ñom bilan bi da leen da leen a metti waaw kon nga gis ne bilan bi daf leen déranger parce que ñu won yakar ni yi mu yi mu yëp da na antu ci ci dir bi mu ko bi mu ko tegoon mësuñu ko gëm mais bi chantier yi taxawee mu leer nañ amul lu wax lu wala xaalis bi boroon noonu ko mënoon ko dugal feneen mënoon noonu def nii loolu waxu ko ci sareet la rek waaw. ñu taxawante ñu gis ne que bërki dem rek génne nga benn chronique di wax ci mouvement révolutionnaire bi xam ne France muy les gilets jaunes ngay comparer Macron ak Macky Sall ana loo ñu mën a leeralal foofu. waaw gis nga li xew France bu fekkee ne Macky Sall dafa toppoon. li FMI ak banque mondiale euh, sant ne loolu la war a def. Hmm. te loolu la Macron topp li dal Macron li dal France kon nañu daal hmm. mais Macky bi ñëwee dafa teg loolu digle yooyu yëpp euh, yooyu recommandation yi FMI ak banque mondiale joxe woon yëpp doo ko teg fële xam nga nu mu def. Hmm. dès 2013 xam nga France dañuy wax ni dafa am. Euh,

ñi nga xam ni ñooy borom doole yi hmm. di am ay bénéfice du jeex xat ci seen hmm. entreprise hmm. dafa jël seen impôt jële ko fi ko Ablaye wàdd bàyyi woon bàyyi woon vingt pour cent ko trente pour cent gis nga Ablaye Wade dafa bi mu ñëwee dégg rekk nekk eh, dégg li FMI ak Banque mondiale doon wax loolu mu taxoon mu jëlee impôt boobu fi ko Abdou Diouf bàyyi woon trente deux pour cent yóbbu ko vingt cinq pour cent Nip mettit la ko hmm. na gis na li ko jaral li hmm. mu ko jural mais makki bi ñewé ñëwee bobu injustice da ko fi war a tax bu jëlat ko de vingt cinq ko 30% pour cent hmm. maak mer bu fut mu ni man nga mer moo ma gënal sama njabot mer te yamul fofu de impo ci soldi mo wañu ko bu waxa ba

yokk na ca bitim réew. Hmm. Mac euh, Macron da ko yokk gilets jaunes yi jóg Mac wóorul na ko ni bu ko yokkoon Sénégal yi nekk ci mbedd mi ndax Abdoulaye Wade eh, lii ko Sénégal yi gën a mere mooy njëgu électricité bi ni mu jógee. Hmm. ba pare ñàkk teg ci. Hmm. Mac mi loolu du ma dal du ma yokk naa subventionné électricité ci dinaa régler problème électricité boobu normal. lors beaucoup de fois on les dal macron dans le cadre il hmm. tel brom solde du tout Il ni faille au smic macron dans le pouce pour on Il y a encore 100 euros mais mac depuis depuis 2000 euh, depuis Euh, première juin premier juin. 2018. donc sax avant que bokk euh, waa France di jë. Euh, SMIC bu Sénégal de trente deux de mille deux cent quarante trois francs. Mhm. yóbbu ko cinquante deux mille cinq cent francs jox ko ba cinquante deux mille cinq cent francs yomul foofu de.

di ko tànc hmm. pour mu jombal leen seen nekkin hmm. da ko sóoraale ci ci dès départ defar ko te tërëwul yàqul dara ci koom-koomu réew mi koom-koomu réew mi jóg hmm. ndax croissance économique kenn lam la maytu ñu doon wax ni loolu bu ko defee day rësal euh, euh, croissance économique amatul lu lay Macron Euh, mi daan wax ba loolu su ma ko defee damay rësal euh, sama taux de croissance économique mm-hmm. léegi mujj na ñu tànc ko ba mu def ko ci ci alam boo xam ni askan bi fu jóg di xeex ba économie bi arrêté évidemment puisque ñoo xeex noonu ba économie bi arrêté force koom-koomu réew mi waat daanu mm-hmm. loolu moo tax koom-koomu réew daanu mm-hmm. kon boog boo amee njiit rek njiitu réew dafay am d'abord yërmande hmm. ci askanam et puis mo am gis gis-gis bo xamni ni dana mën tax bu jiru ay euh set nan lay gatando coono yi bëgg ñew mais bu fekke ne yow lolu amoo li dal Macron mo lay dal. fofu lañuy taxawandi nga dikkal ñu ci en tant que membre de la commission mi xam ñoo saytu agriculture Sénégal. guddi ñu toll ni ñuy annoncé benn famine ci côté nord ana loo ñu ci mën a wax. non dañ wax famine non gis nga dañ ni dafa dafa dana am risque de famine. Hmm. mais famine amagul ndax ñi di ñu ngi soog di e, góob seen dugub. Hmm. ak seen ceeb am nañu. Hmm. mais du doy du leen mën a dundal am na koo xam du leen mën a dundal bi ci at mi loolu gouvernement bi seetu na ko jël na ay disposition ba du ren rek. daaw amoon na fi. Hmm. mais terewul gi waroon jël ay disposition ba kenn jooy fu xiif kon boog ñu dina gis déficit production rek ñu ne xiif dana am déedéet. Hmm. xiif dana am bu fekkee déficit production boobu jëloo ay matukaay pour jox nit ñi lu ñu dundee loolu la Macky def ci juróom-ñaari gox yi nga xam ni Sénégal amoon na fa daaw déficit.

waaye seen libéral du benn mhm. kii libéralam du ko sës ci defar réewam euh, boole ko wàññi coono askan askanam mhm. kee dafa libéral la mooy dafa yokk koom-koomu réewam ci coono askanam loolu moo tax ñoom ñu wute

Nous avons signé convention yi dafay gagne Sénégal hmm. euh, Bon, non la mais nous ne na leen Nous avons dara mënul am ci Adina. mais bu bu comprendre la convention yi lal euh, euh, pétrole ci àddina bi bu ko parce que ñaari eh, eh, ñaari comme phase eh, ñaari étape moo am ci biir pétrole. Mhm. étape bu njëkk bi mooy gëstu ba seet ndax am na wala amul. Mhm. bi ci des boo amee mooy deuxième phase boo amee nan daan ko exploité. Mhm. phase bu njëkk bi bi nga xam da ngay ñëw pour gëstu pour seet ndax am na wala amul gouvernement bi dafa ni ku ñëw indi sa alal di seet naa la jox zone boo xam ni. da nga dem seet mais la alal ja nga fay def euh, du mën a teg benn taxe parce que suma suma ta su dugal ay taxe ak ay impôt mais kenn du ñëw hmm. yow doo ñëw da ngay def boo gisee xarit boo gisul ñàkk hmm. ñu la ciy teg ay ay taxe hmm. loolu moo tax ñu ni phase boobu phase prospection kenn Sénégal du ci am dërëm lim ci am rek mooy peut-être salaire ñi nga xam ni ñoo ñooy bokk ak borom alal ji hmm. ñu leen di fay pour mu jàpp leen pour mu euh, ñu def trop pour mu def ndax am na pétrole wala déet hmm. bi Sénégal taxee ba léegi ñaata borom alal ñu ñëw saytu seet gisuñu dara ñàkk te Sénégal fayu ci dërëm ndax ñoom ñoo jël seen matukaay ni dañuy ñëw seet hmm. yaakaar ni fi am na yàlla def nag ñi nga xam ni euh, gënoon nañoo xarañ ci set bi mu am ñi ci gis ñi ci gisagum ñaar lan mooy euh, américain Cosmos mm-hmm. ak Angleterre BP British Petroleum ñoom ñaar ñoo gis te lu ñu gis bu dee gaz bi Sénégal ak Mauritanie ñoo ko bokk bu dee pétrole Sénégal moo ko moom loolu la ñu gis mm-hmm. loolu du ko gisee Sénégal ñu kon bokk dañuy toog ñoom xayma pétrole bi xam bis xam na ne lii am na intérêt nan lan ko mën a génne liggéey ko ba njëriñ génn ci loolu xam xaalis lay jar ñu ne xaalis boobu ñoom ñaata la ñuy indi pour liggéey boobu ñaata la Sénégal ak Mauritanie ku ci nekk indi pour xaalis pour njëriñ pour liggéey boobu euh, Sénégal cote euh, pétrolière dafa ni pour cent tey indi dégg de waaw et puis sunu koom-koom mooy ñu quand même ñu ñu ñu yàgg ci. phosphore yi. dix pour cent mais terewul dix pour cent yooyu bu duggee ba pare euh, sunu fiscalité dem na ba ni. Euh, ki nga xam ni dafay am fii bénéfice mm-hmm. ci li ngay liggéey 30% ngay fay mm-hmm. ci sa bénéfice kon boog 2% pour cent yi da nga ci yokk 30% pour cent yi ñu jël ci bénéfice mm-hmm. et puis tegul foofu am na euh, tol exploitation yi am na foo xam ne bu fa toll liñ leen baaloon ci TVA mooy taxe. li ñu si bari ci taxe. Mhm. ak drogue douane drogue lay teggeeku ndax fekk na. am na doog liggéey bi am na fo foo fa toll. jaratu euh, euh, TVA bi mu daan bañ a fay taxe bi mu daan bañ a fay. Mhm. da koy fay. Mhm. loolu moo tax yooyu yëpp mën na ko xaymaa seet. kon suñ la déggee bu baax suñ la déggee bu baax contrat yi nañ ko tënkee mi ngi aju ci volume de production bi nu mu toll. nu mu toll gis nga bi ñu ko seetee ba nga xam ne. et euh, euh, volume bi dëgg dëgg dëgg bu demee bay egg digg dooleem. Hmm. bu ñu xaymaa Sénégal koom-koom bi génn. Hmm. ci pétrole bi ak ci gaz bi 55 cinq pour cent yëpp ci Sénégal Sénégal moo koy. kon Sénégal est majoritaire. non mooy ëpp ci ci alal ji dégg nga. ndax hmm. impôts yi dugg ak taxes yi. dégg nga société bi borom alal mooy majoritaire. mais ci.

borom day dem ba 60 pour cent. Hmm. mais fii ni ko Sénégal ni ko Macky négocier tax na ba duñ ci gaañ. au hmm. contraire euh, li ëpp ci koom-koom bi ñoo koy moom. Hmm. loolu la ko mënul comprendre. ok tax moom bi bi ñuy def explo exploration euh, war nañu fay ay impôt te fay waaye kooku boo dee nit ñëwal seet boo gisee.

jéppi leen ba way ba wal mi ci du bax loolu moo tax makki du tay di len wo di len wax di leen ŋàññ guddeeg bëccëg té ñom nak buñ defal ndànk li may ñaan rek moy sénégalais bu leen jéppi ba wal mi ci ndax ñun defuñ ci dara mhm. ñun dañu and ak makki di liggéey makki mi ngi liggéey ñepp ñu ko gis amna yermale mais amna ño xamni xam ñi mu andal ci mhm. parti mhm. amna ci ño xamni wax dëgg yàlla ah seen taxawaay ak seen doxalin mu ngi eh, xajamal soow mi te soow bu xajamee dana dana naqaree naan. jërëjëf euh, professeur euh, ñun leen koy fàttali rek yéen nga àndoon ñun seen euh, rubrique 15 minutes pour convaincre kon dañ ko jox kàddu gi rek mu ñëwoon ñu si mot de la fin. ah xanaa di leen remercier encore di am vraiment mbégte ci yéen. et puis surtout euh, di euh ñi nga xam ne ngi suivre émission yi ndax luma ci wax lo xam ni tar vraiment du sama coobare buguma wax dara loo xam ni euh, euh peut être amna ay explication yo xam ni peut-être euh, expliqué ko ci wolof dana xaw a jafe. Mhm. ñuy jëgal ma jërëjëf. jërëjëf euh, ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax ci euh, ànd bi ngeen doon ñu doon topp seen rubrique 15 minutes pour convaincre euh, ñu ngi leen jox dig daje ba benn yoon ci beneen numéro yaa ngeen jëf.